wéejuram wu jigéen bàyyi koo gànnaar ci Mauritanie dañuy wax dawal xaas ñu sang yoo xam ci yonent bi lañ sëtu ci la bokk ci hmm. meen lu ñuy Fatmata bintul Kubra mooy wéejuram wu jigéen ñu delloo ci sëñ Omar Fall Batoul xasida bi mu doon woy doomi sëñ Tuubaa yëpp di leen woy ak soxna yi wax na ko ca dani fatimatul kubra laha abdul aziz bi man bihi rajawtu kawniya aziz kon Fatmatu bi Fatmatu Bintul Kubra. mu ni lëxaa ñeel na ko Abdul Aziz doom ñu Abdul Aziz ndax sëñ Abdoulaye borom dër bi daa bokk ci ay turandoom Abdul Aziz. xam ngeen ni sëñ Modou Awa Balla tudde na ko doom. mooy sëñ Abdul Aziz um sëñ Modou Awa Balla. sëñ Mourtada tudde na ko doom. mooy sëñ Abdul Aziz Gassane. Gassane. waaw mu sëñ Mourtada. ñooñu Abdul Aziz dañ leen woowee. kon daa bokk ci ay turam. sëñ Baara tudde na ko doom. mooy sëñ Abdou Kumba Suuna. Euh, sëñ Fàllu tudde na ko doom mooy sëñ Abdourahman sëriñ Sooy bu Mbàkke tudde na ko doom mooy Cheikh Abdou mu sëriñ Sooy bu sëñ Abdoulahi sëñ Basiiru tudde na ko doom mooy sëñ Abdul Hakim mhm. mu sëñ Basiiru wér sëñ Mor Mbay Siise tudde na ko doom sëñ Abdou Siise wallaay ndeysaan dégg nga naa ko topp mag ñu baree baree bare day gudd wallaay ndeysaan pour war la kon ni mu bare ay turandoo ak ni ko mag ñi fonke woon mhm. Abdul Aziz dafa bokk ci turam moo tax sëñ Omar Fall Batool bi mu koy woy mu ni kon soxna Fat bintul Kubra mi nga xam ni lëhaa ñeel na ko Abdul Aziz doomam jooju bi man mu amee ko ci sang bi nga xam ne sëñ bi bii ci moom rajawtu ci laa yaakaare kaw ni Aziz nekk ko tedd tedd kon Cheikh Ahmadou Bamba dafa jële ci gànnaar soxna Fat bintul Kubra ak soxna Fat bintu Zohra kii ci la am sëñ Abdullahi borom dër bi ki ci des ci la am sëñ Ibrahima Mbacke ñu ngi ziyaare sëñ Daam Atta bu baax bu euh, sëñ Abdoulaye borom dër bi kon soxna su tedd soo su moo ko meññ ci Cheikhul Khadim mu ngi gane àdduna tam ci weer wu ñuy wax weer weeru baraxlu ci la feeñ xam nga baraxlu mooy Saabaan moom nuru na ko sëñ Touba dafa nuru sëñ Touba ci lépp dinaa ci ñëw sëñ Moussa Ka bind na ko ci la feeñ gane àddunaam mu ngi ci fin 1907 am na ñu ni ca novembre ba am ñu ni septembre soriw ci la gane àdduna ca Céyeen Jolof xam ngeen bi sëriñ bi demee ci tukki bi xam naa daam doo ñu mënee may foto sëñ Abdoulahi borom dër bi bañ mën koo jàkkaarloog jëmmam ju tedd jooju dina am solo lool hmm. borom jën ak joor ak ndox tey nag xam naa ni Mansour moom bi ah, na dégg rek naa ko wax lu wér sëñ Abdoulahi waaw bi mu ganee àdduna mu ngi fekk sëriñ bi hmm. gis nga wax na woon sëñ Touba lool dinaa ci ñëw bi mu bi sëñ bi demee ci tukki bi ba ñibbi si 1902 xam ngeen gànnaar la demaat ndogal bi fa la ko yóbbuwaat muy Mauritanie sëñ bi nekk fa 1903 ba 1907. ci la ndogal bi ñëwaate mu war a dil si senegal dem fu ñuy wax Ceyeen Jolof tubaab bi ko yóbbuwoon Ceyeen Jolof résidence xam nañ ni Jolof dafa naqari woon a dem ndax Jolof ñaari porte d'entrée la am muy benn bi da ngay jaale fu ñuy wax Bolal benn bi nga jaar fu ñuy wax Caamin bii di nga parcourir 36 kilomètres bii nga vingt 22 kilomètres pour dugg fa. muy bërëb bu bari woon ay xeer. di bërëb bu tàng di bërëb bu inaccessible pour dem fa ñu ne bu ñu fa yóbboo Serigne Touba mag ñi duñ ko fa mën a fekk. Mhm. yàlla defal ko fa nag tawféex fa la amee doomam ji suñ Abdullahi borom dër beeg ku mel ni soxna may Maymunatul Kubra mi nga xam ni mooy mag yi sëñ Abdul Xaadir ak soxna Xadija yàlla dogal mu ganee fa àdduna ci fin 1907 jàpp 1908. bi muy war a gane àdduna fekk na Serigne Touba yónni woon rakkam ja ko déggal ci lépp di maam Cerno borom daal. borom daarul Muxti loxol ndeyjooram. ni ko na ko wutal bërëb boo xam ni nu ko tuddee daaru Rahman. defaarata ko beneen bërëb bu tudd daarul Quddus. daaru Rahman ji digganteem ak daarul Quddus mu ngi toll ci lu tolloog 1500 mètres 1 kilomètre genn wàll. loolu mooy distance bi sëriñ bi sancloo maam Cerno fii ni ko comme damaa war a ñëw foofu gaawal njëkkal ma fa saytul ma ko. defaral ma fa samay kër fa laa war a jëm si. kon nag bi sëñ bi ñëwee Daaru Xuddoos ci 1907 googu ci fin bi ci la sëñ Abdoulaye borom dër bi feeñ. bi mu feeñ ndax sëñ Touba juin la fa ñëw juillet août septembre ñi leen diggante septembre octobre novembre ci la sëñ Abdoulahi daal di feeñ. bi mu ganee àdduna sëriñ Touba moo bind turam tudde ko Abdoulahi. jaamu bi yàlla waaw. am na ay ixtilaafaat ci am ay werante ak wuute. am na ñu ni sëñ Maxtaar Bintaloo la jox tur yi am na ñu ni déedéet sëñ Amsatu Jaxate la jox tur lu mu ci doon kenn la ci ñoom. waaw ndax léegi noonu la ñuy waxtaanee ci yoonu murit. mu joxe tur bi dinañ ko yóbbu ngi tànnali ko tur di Abdullahi. muy jaamub yàlla bi. cëla sëriñ bi tamit amee ndigal ci boroomam ci taalif xasida gii di min al xaq jaa al xaq lil xaqi fi sax bi bi xaqin mubinin laa yuaaniihi min saabi mm-hmm. ci la ko taalife wax ni sunu borom may na ko ci sërite boo xam ni gan gii moo ko waral képp ku sa bët tege ci xaside gii sa yaram araamal na safara ëllëg doo ci tàbbi defe naa ci këru murit yu bari da ngeen fekk nu jël xaside minal xaq daal di koy def benn photo bu mag taf ko ci ëtt kër gi ngir ñépp seen bët man cee tege ngir xam ni waxi Sëñ Tuubaa lu mu wax yàlla da koo may ba noppi ni ko door koo bind kon minal xaq ci boobu contexte la ko taalifi sëñ Abdoulaye bi mu demee ba toll ci wàllu jàng fekk na xam ngeen sëriñ Touba ñëw na fii Njaareem 1912 mais bi muy ñëw 1912 sëñ Abdoulaye ngi am juróomi at waaye jël na ko joxoon njaboot gépp sëñ Ndaam Abdourahman Lo ca Ndaam. Mhm. xam ngeen sëñ bi mu nekkee 1912 xat-xatu foofu mu nekk ci résidence tax na lu bari njabootam da ko bàyyi sëñ Ndaam Abdourahman Lo mu leen di toppatoo ñi ci toll si jàng mu leen di jàngal moo tax kon. sëñ Abdoulaye fa la nekk ba war a toll ci dal eh, dal alxuraan sëñ Touba dalal ko daal di koy jox sëñ Daam Abdourahman loo mhm. pour mu jàngal ko alxuraan mhm. mu jàngal ko ba mu wattu kaamil bi mokkal ko mokkal ko rafet ci la ko sëñ Daam jële mhm. ànd ak moom ñëw njaareem indil ko sëñ Touba mu bind si kaamilam boobu keroog bi mu ko joxee mbindum sëñ Abdoulahi borom dër bi sëñ Touba dafa yéemu ci nuroo gi mu nuróog moom loxo ñoo nuróo bind lépp lañ nuroo nag daal ni hëza xattu yamini dégg nga hëza lii xattu nii sama mbindum loxo ndijoor la fekk na benn naar bu fa toog naar ba ni ko déet mbàkki kii tuut tànk bee ko bind de di ko joxoon sëñ Abdoulaye borom dër bi sëriñ bi mel ni ku ca tàng ni ko hëza xattu yamini lii sama mbind sama mbindu loxo ndijoor la ngir nuru gu mu nuroog sëñ Tuuba mm-hmm. mu def jëmm joo xam ni dafa bëgg sëñ bi ba bi nga xamee ni sëñ daam delluwaat naa mënatul a toog ndaam gis gi muy gis sëñ Touba dafa bëgg a dend ak sëriñ bi bi mu ñëwee sëriñ bi laaj ko sëñ Abdou lu la fi indi mu ne ko mankat kat dama damaa mënta tàggoo dama laa bëgg lool sëñ Touba ñeewantal ko na toog léegi ci man foofee la ko dëwaloon ci njaareem jox ko fa kërug boppam bërëb bu mu nekkoon keesu boppam mu nekk ci wetu sëñ Touba ko jege woon sëñ Touba. moom sëñ Abdoulahi. wax na sax bis moom sëñ Abdoulahi. nee na sëñ Touba ni tee bi rafete der bi am na bis mu ne ci biir kees ak moom di ko jàppale ci téere yi waaye xàmmiitul tànk sëñ Touba bi li muy rafet rafet ngir fel yi ni ñu ko sadde fees dell ci tànk bi. sëñ Touba kenn moom. sëñ Abdoulaye boobu foofa la nekk ci wetam. sëriñ bi waxoon maam Cheikh Issa Dieng boroom Dieng ak Lagat ak Cheikh Balla Faali Dieng ni leen sëñ Abdoulahi mii ak sëñ Ibrahima de comme ñoom amuñu ay nijaay fii ci réew mi ndax seen wéjur yu jigéen dañoo bàyyi koo gànnaar. dama leen a féetale ngeen nekk taxawaayu nijaay ci ñoom ba tax maam Cheikh Issa jenn ak Cheikh Balla Faly jeg di leen taxaw lu ñu bëgg ñoo leen koy wutal ci lépp lu ñu bëgg. looloo waral sëñ Abdou Dieng Balla Faly nekk ci turandoo yi sëñ Abdoulahi yu mag yi. yu mag yi mm, te Cheikh Balla Faly Dieng it moo ko daggal këru Tuubaam gii. Mm-hmm. ñii rek bëgg gi mu ko bëggoon ak li ko sëñ bi féetale moo tax mu teel ko taxawul ci jox ko kër. ndeysaan kon bëgg googu lañ ko bëggoon. Mm-hmm. sëñ Abdoulahi di ki gën a dippi sëriñ Tuubaa ci mbooleem njabootam ci jëmm ci jëmm. Mm-hmm. ci reetaan. Mm-hmm. ci gisin. Mm-hmm. ci dox ni ñuy doxe ci taxawaay. ci yaram. ci teen. dégg nga ci lépp rek. ci kàddu <laughs> moo tax sëñ Moussa Ka mi dégg sañ Touba lool bi muy woy. doomi sëñ Touba yi ci xarnu bi. mu ne Allahu moo di genn waay. mooy jàpp doom. def ko ni baay. ñu bokk benn taxawaay. abdoo di bambam xarnu bi. soo ko gisee muy sàmmandaay seex bàmba ñoo nuroog jataay nuroo yaram nuroo sewaay nuroo deret ci xarnu bi nuroo wax yiin nuroo dox yiin nuroo jëmm ak meloog defiin suy ree nga waat ni du keneen bàmbaa ñëwaat ci xarnu bi moo di wallax njaanu jinaan bu leen ko xoolee bëtu keñaan keñaan bi tax bijj na daan bàyyi ma àtte xarnu bi wallaahi bàyyam atte moo doon tab ga woon ca moom. Mhm. moo doon njàmbaar ga woon ca moom. seen bàyyi séddale jikkoom sédd ko lii ci xarnu bi. Ah, kon sëñ Moussa Ka leeral na ni yaram weeg jëmm jeeg melo yëpp sëñ Tuubaa la ko dippi ba sëñ bi daana ko nëbb lu bari ndax nuróo gi mu nuróog moom. sëñ Abdoulaye. Ah, ngir bañ ñu koy jàpp. Mhm. soxnay barzaq yi newoon ci kër sëñ bi wax nañu ni dégg nañu miraaran kàddu sëñ Abdoulaye teg ko sëñ Tuubaa. nga xam boobu seng doxee seen diggante wala kiiraay dañ naan ko tedd kaa ngi fii ñëpp tiit ni sëñ Tuubaa fi nekk waaye bu kiiraay bi muri ko ñu ndekke sëñ Abdullahi la kii moo dippi sëñ Tuubaa mag ñi wax nañu ni daanañu toog mu ni bërët wut si leen buy ñëw ñëpp daan sëriñ Tuubaa ngi ñëw ñëpp defaraat toggin bi ba mu jegee ñu door a xam ne sëñ Abdullahi borom dër bi la kon defe naa jëmm ji dippi woon sëriñ Tuubaa sëñ Abdullahi borom dër bi mu jàngee nag ba yàlla dogal mu jeexal xam yooyu muy alxuraan xam sew-sew yi ci nekk mhm. sëriñ bi nag jox ko ndigalu dem daarul moxti ci maam Cerno jàngiwaat xam-xam cey borom daaru borom daaru booba fekk na maam Cerno euh, dem na ba jàngaleetul sax ndax boobu jëm na mag mhm. jàngaleetul waaye bi ko sëriñ bi joxee ndigal dama bëgg nga jàngal Cheikh Abdoulahi rek mhm. ci la maam Cerno ndigal rek a fi bàyyi kon damay duggaat ci daara ji jàngale cey borom daaru njabootu maam Cerno gi bokk ak moom jamono tam mu leen di jàngalaale nga xam bi mu demee ba sëñ Abdoulahi fànn yi mu doon jàng mat ba mu dellu si ah, njaboot ga dañ ni maam Cerno ah ñun de dañoo bëgg nga wéyal di jàngal mu ne ah ndigal laa amoon nag. Mhm. di man a jàngal ñëpp ndax booba sëñ Touba sama sëriñ ma jox ndigal. comme Cheikh Abdoulaye dem na da ngeen di fexe ba mu ñëwaat fi bu ñëwaatee rek ma daal di wéyal ndigal loolu ngeen mën a jàngal. pour wan la kon dañ ki déggee maam Cerno ni mu tëm ko woon ci ndigalu sëñ Touba. waaye ni sëriñ bi fonke woon sëñ Abdoulaye borom dër bi. Mhm. tax mu yebal ko ci maam Cerno ngir mu jàngalaat. Mhm. bi mu jàngee nag ba géeju sëriñ Serigne tax takkook magam yépp nekk ay xarit ak ñoom. Mhm. nekk jàmbaar joo xam ni 1929. Mhm. booba la sëñ Touba ñibbi aljana ba mu def ñaari at. Mhm. kon boobu sëñ Abdoulaye Borom Dër bi 22 ans képp ca la ci la taxawal dëkkam bële nga xam ni tey ku fa dem fekk fa dër boo xam ni tey raaf na waaye dër boobu moo ko fa indi ci jamono bi nga xam ni Sénégal xamuñu. muy Darou Rahman muy Darou Rahman. Mhm. vingt 1929 la ko sancoon ci mois de novembre. 1929. bi mu ko sancee mu xam ni jàng kilifa mënu ko ñàkk am ku koy jàngaleel ci daaraam mu dem wax ko sëñ Mbàkke Buso sëñ Mbàkke Buso jox ko doomam ju baax ñuy wax sëñ Cheikh Fati Kanni Buso di mbokkam mu joxe ko foofa muy jàngaleel sëñ Abdoulaye ci biir daara ji ne fa di jàngale sëñ Mbàkke Buso ni ko ki sunu dooma de waaye lu dul kawar gu weex ëpp ëppalewu jukkoo kawar gu weex képp lañ ko ëppale waaye bu dee li ci téere lu ñu xam-xam na moom def na ay xasaayit yu rafet ci sëñ Abdoulaye Borom Dër. sëñ Cheikh Faty Kani. waaw waaw fa la nekk di ko jàngale. mu fexe ci jamono boobu nga xam ni dafa raw jamonoom sëñ Abdoulaye Borom Dër bi visionnaire la ndax bu ñu la waxee les années trente quarante quarante neuf cinquante fekk na ko mu créé benn dër mooy jardin. pour ndaw ñiy dégg sëñ Abdoulaye Borom Dër bi duñ ko comprendre. mooy sëñ Abdoulaye borom jardin bi. dafa amoon jardin boo xam ni. lépp lu ñuy jëfandikoo ci xeetu meññeet daana ko fa bay moo njëkk di xam ngeen baawal ni mu bindoo. mu fexe ba dëkk boo xam ne 5 kilomètres ak Touba mu lijjanti fa ay bassin de rétention yi nga xam tey état baa ngi ci door a toll état yi sunu état yi. ci à l'époque moom am na ay bassin de rétention yoo xam ni ñooy téye ndox mi ci biir ak lépp di ko di ko toppatool. mu yónnee ca diggante Casamance Ndar wut ay jën yoo xam ni da leen di traité fii ci dëkkam jën yooyu di produire ay jën def reproduction muy am jën piir ñu koy lekk ci biir dëkkam. dañu ko jéggaat jamonoom lu yàgg. waaw fexe ba ci biir dëkkam ñu fay bay ceeb te ceeb ñu miinoon ko côté waalo moom ñuy bay ceeb bu neex ci biir dëkkam diggante soble diggante patate oignon aubergine navet. carotte ba ci ay papaay dégg nga gerte dugub sëb euh, mboq lépp amoon na ci kër Sëñ Abdoulaye Borom Dër bi àggoon na ci ni amul lu ko jaral wuti ko lu dul xorom am na bis jabootu Sëñ Tuubaa am ci ñenn ci ñoom ñu ko nuyu si gane si ko mu ni leen xéewal gi ma leen toggal ak teraangi ñu leen defal yépp ci ay xeeti dessert yépp moo ne dana génn ci sama dëkk bi xorom képp laa ci wuti kon loolu mooy dafa déggoon jamono. Mhm. ba tubaab yi mu defal ko croix légion d'honneur ci wàllu agriculture mbay ak teel a jéggi jamono raw leen ci vision. yeboon ay genre camion yoroon ay na lépp ci jamonoom am barke boo xam ni di exploité lépp ci biir dëkkam duñu génn duñu génn bu dee xam-xam nga soxla ci dëkkam ñu jàngale bu dee loo dundee ak loo bàyyee téye sa diine ak sa dignité mu fexe ba sa diine ak sa dignité lépp mat sa biir dëkk te doo ko génn ci boobu jamono suñu Abdoulaye Borom Dër bi mu nekkoon jëmm joo xam ne yàlla da koo may aljanay suuf sëñ Abdul Xaadir rakkam da ko mës a gane mhm. dégg ku ko ci taxaw naan ko ah sëñ Abdoulaye de sa dëkk bi daa mel ni aljana mu tontu ko alxuraan sëñ Abdoulaye borom tër bi dafa niru sëñ Tuubaa ci dégg alxuraan. ma mhm. ne ko wali man xaafa maqaama rabbihi jannataani. jannataani wallaahi nga dëgg. suuratu Rahmaan moo ni. képp ku ragal sa borom jox ko. dayo ba mu am ci yow ragal ko dëgg-dëgg mooy tandi ko tereem ne ca la la war ñaari ajjana kay am wali hmm. man xaafa maqaama rabbihi jannataani hmm, kon am naa ajjana yi fii ak ajjana yi fële dëgg la moo tax ajjana jooju mu amoon ko ci kaw suuf mel ni jardin hmm. njabootu sëñ Tuubaa gépp daan fa daje mu juboo woon ak gépp diggam ak Seex Muhammadul Bachir wax naa leen tuddee ko doom diggam ak sëñ Fàllu kenn xamut lu mu doon da koo bëggoon ba jeex tàkk ndax sëñ Fàllu moo ne 1960 au mois d' avril avril 1960 la Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma lotir Touba ci ndigalu sëñ Fall bi mu koy lotir sëñ Fall moo ne ko na nga fexe ba sama kër sëñ kër sëñ Abdoulaye Borom Dër bi dend ndax Serigne Touba mas na noo woo ab jataay ni ñu yéen ñaar ñii da ngeen a war a dend ndax seen ñaari kër yu àjjana ñoo dend cee nga xam moom fekk na sëñ Abdoulaye dem ndax sëñ Abdoulaye mu ngi génn àdduna mois de janvier le 15 janvier 1960 mais bi ñu demee ba 4 euh, avril. 1960 ci la sëñ Cheikh Gaynde Fatma lotir Touba ci la fexe ba kon këru sëñ Fallou dend ak kër sëñ Abdoulaye Borom Dër ngir seen diggante defe naa ki mu ko tudde sëñ Abdourahmane ñëpp xamoon nañ ko ku tabe doomi soxna sunu yaay nday soxna nday loo moom lu ko tudde ñu nekkoon kóllëre lool ñoom ñaar jaxasoo lool moo tax seen kër yi dend loolu ndigalu sëñ Touba la woon mhm. ju sëñ Fallou wax sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mhm. diggam ak sëriñ Saalix nekk lu yéem ñëpp bëggante gi bëggante woon sëñ Abdoulaye daa mës di génn tukki bu sori jël néegam batale caabi jéeg lépp sëñ Saliou ne ko nag ma saytul néeg beeg yi fi nekk yëpp samay bagage ay yéere ki ay téere yu mu doon ci sëñ Tuubaa yu bari mu dénk sëñ Saliou néeg bi daal di dem yàgg fa lool ba ñibbisi nag bi mu ñëwee laaju ko sëñ Saliou lu yàgg laaju ko ko sëñ Saliou ci maandu ga ak teggin ka jël caabi ji ak bagage yi ñëw di ko jox mu ne ko déedéet mën nga koo téye ndax su ma ko jëlaatee ci yow day mel ni nekkunu benn te xam naa ni soo ko téyee yaa ma koy gën a mën a sàmm sax kon man du ma la dénk dara di ko jëlewaat ci yaw day mel ni nekkuñu benn su fekkee ñun benn lanu rek waruma ko jëlaat ci yow kon defee loolu la bëggante woon sëñ Saliou diggam ak sëriñ son yi bu am na ci bis sëriñ Fallou mooy dem daal daal di man de sëñ son yi bu kenn mënu koo génne ndax fu mu toll mu ngi ci jàng ak jàngale man daal xawma nu may def ba mu dem rek xanaa ma fexe ba sëñ Abdoulaye borom dër bi fexe la waxal ma ko ndax boo xam naa ne lu mu dina ko def ne ko fexeel ba sëñ Souhaïbou bu ànd ci tukki bi sëñ Abdoulaye borom dër bi ànd ak sëñ Fallou ci oto bi ñëw bu buntu kër sëriñ Souhaïbou bu ñu taxaw nu ngi fekk sëriñ Souhaïbou bu di jàngale nga xam ne benn xaftaan la sol di jàngale waaye sëñ Fallou da di ko fexeel ba mu dem rek sëñ Abdoulaye wàcc ñëw ci sëñ Souhaïbou bu woolu ko mu ñëw mu ne ko danoo bëggoon nga gunge ñu léegi ndar mënoo faa ñàkk suñu tukki bi sëñ Abdou sëñ Souhaïbou bu ne ko ah, man de doon jàngale nii sax daa mel soruma rek yooyu de bu jot mu ne ko waaw gaalu yére ngi sa biir euh, ci oto bi soo duggee loo bëgg sol sol ko waaye dan dem rek sëñ sooy battalewul noonu la teggee ànd ak ñoom ngir kóllëre gi mu amoon sëñ Abdoulahi borom dër bi nga xam ni kon mu bokkal sëriñ Touba ñëpp fii lañ ko tegoon ku ne sopp ko mhm. ku bëgg ko ku ne yéemu ci moom ngir nuru gi sëñ Touba ak bëgg gi mu bëggoon sëñ Touba mhm. sëñ Abdoulahi borom dër bi ba fi tam ñu baax mhm. ni mu baaxee ñu baax la fi bàyyi xam ngeen bi muy génn àdduna 1960 booba sëñ Cheikh Darou Rahman 14 ans la am. waaw ñett fukki at ci la toll. wallaay ndeysaan. Baye Ndama Fall maa ngi ñaan sunu borom dolli ko ngërëm. wallaay ndeysaan dolli ko njëggal ak leer. moo ma nettali ci làmmeñam Baye Ndama Fall mooy bàyyi sunu xarit yooyu nga xam ni. sunu magu bopp sëriñ Mahmadan faal ak sëñ Modou Fall. Ah, di ziyaare tam sunu rakk ji wàcc liggéey bu yàggul maam Cheikh waaw. maa ngi woo démb rek sëñ Ousseynou ñu ci waxtaan. wallaay ndeysaan. Ah, Baye Ndama moo ni ma. 1960 man la sëñ Fall jox maa ñaw. mbub mi mu sol sëñ sëñ seex daaru rahmaan keroog bi nga xam ne sëñ abdu dem na mu toog wuutu ko yére bi mu sol man la sëñ fàllu jox maa ko ñox oh, nee na sëñ fàllu ci boppam moo ni lu waaye doon jaayanteeg seex abdoulaye ñëw jaayante ko doomam jii lu mu amoon ci seex abdoulaye dinaa ko dolli man fàllu <laughs> dinaa ko dolli ba mu saf-saf sëñ seex di ko teel nga xam dundam yépp zéro faute la sëñ seex daaru wallaahi ndeysaan docteur la woon di faj ruu yi docteur la woon di faj jarag yi ñu feebar zahir ak baatin maandu lool. jàpp njàmburam na jàpp njàmburam lool mën a jaamu yàlla bëgg magam ji lool nag sëñ Ahmadul Muxtaar mu sëñ Modou Moustapha nekk ci lim nekkoon bëggi mbokkam baax lool liggéey ak dimbale dëgg la kii mu fi bàyyi di sëñ Mouhamadul Habib ah, sama sëriñ sama xarit murid saadix murid saadix la ah, ku baax ku jaasoog ñëpp foo ko fekk ci suuf rek nga koy fekk ci suuf rek woyof toy bëggul daray daraja ah, moom xàmmewul taalibe kenn moom ñëpp loolu la mel noonu la ay rakkam mel ñoom sëñ Matar ñoom sëñ Mbay Mbàkke sëñ Modou Kéemaan sama xarit sama sëriñ maam Cheikh Anta nag si sëñ Sidi ma nga ba ci sëñ Moustapha Xasaay ñoom ñëpp noonu la ñu mel kon pour war la sëñ Abdoulaye fi mu nekkoon jaboot gu jigéen gi soxna May soxna May nga xam ne yow da ngay dem Daaru Salaam léegi ak <laughs> soxna Moomi waaw mu ngoo ak soxna maam Xëri soxna Faati moom sëñ Abdoulaye ba ci mm. soxna Astu mm-hmm. Euh, soxna musli ñoom ñëpp koo ci gis rek mm. sëñ yi ngay gis ci ñoom mu bari woon baatin lool sëñ Abdoulahi ah, waaw baatin bi moom dégg naa amul woon dend sëñ Amsatu amul woon dend ci baatin dama la wax firnde sëñ Amsatu jaxate wallaay ndeysaan xam nga sëñ Amsatu daa yéeme moom ba yéem ñëpp sëñ Amsatu ñëpp xam nañ ni ko kéemaanuk sëñ Tuubaa la kéemaanam la woon moom mi jot sëñ Amsatu waaw moom rek la jot amul keneen koo ko mën a solal mu jot ko xam nga sëñ Amsatu jaxate ko dem ba sëriñ Tuubaa ni ko kii nga gisoon léegi sama néeg gisatoo ah. sëñ Amsatu moo dugg naa ci néeg benn xayma sëñ bi woolu ma fa ma fekk fa sëñ Touba jëmmi naar jëmmi naar ju am kàttan mu toog di wax ak sëriñ bi xawma la ñuy wax ñu ngi mun muni ci suuf ma ci dara nee na nee na ma génn ci néeg boobu di xaar sëriñ bi ci biti man sëñ Amsatu nis tuut sëriñ bi wooluwaat ma ci biir xayma sëñ Amsatu nee na ma dugg ci biir fekk jëmmi sëriñ Touba képp ci néeg bi gisatuma jëmmi naar ji te bunt bi benn la maa ci toog te gisuma fu mu jaar nee sëñ bi ndax ni ma ndax xam nga Amsatu koo fi fekkoon ma ne ko jëy mu ni ma sa turandoo Seydina Hamza cee Seydina Hamza sa turandoo bàyyi taxu rasulullaay ma tëdd ca a Munawara ca Uhud moom nga fi fekkoon kooku mooy sëriñ maa ko woolu woon tey mu ñëw fi damaa bëggoon daraja yi mu amoon yépp ci xeex yi mu xeexal yanant bi ba wàcc Uhud mu ràng la daraja yi ba nangul na ma ko fan yi di nga am tawat yu metti nag waaye rek taw féex ci topp ndax dalay jox deraata moo sëñ Ablaye ginnaaw sëriñ Touba waaw kuy génne ci barabu sëñ Touba bii waaw